yitte ji nag <coughs> du du sunu bopp mm-hmm. jëmm yàlla ji moom mooy jubluwaay wi waaye tamit jariñ ñun ñu jariñu mooy jubluwaay yi ndax euh, tuddewuñ ko tuddewuñ ko du sant yàlla waaye ci xéew lim jaar ci Sëriñ Tuubaa màgg si ci ñun loolu nag defuñ ko tëbuñ tëb rek ne dañ koy def waaye dañ ko boole kum njàngale mm-hmm. dañ ko boole kum njàngale ndax slogan bi ma doon jéem a leeral léegi rek la bokk muy nan la ñuy àndandoo fexe ba secret Muhammad wala wala nu ma ko mën a waxee sirru bi yàlla def ci doomu aadama bu ne te loolu di doon li nga xam ne su ko gisee mën a jariñu àdduna mën a jariñu àllaaxira loolu mu ma nan nu muy fexe ba gis ko loolu mooy sunu njàngale. na ko ki nan lañ koy seetale ci boppam sirru bi nga xamante mooy moom te sirrum boobu mooy jëmmi Muhammad sallallahu alayhi wa mooy leer googu noonu nit ki nan la koy seeti ci boppam ba gis ko waaw moo tax ma ne ko léegi moo tax ma tuddee ko noonu booy gis lii am mooy sirru muhammadiyya bi rek mooy yitte ji nan lañ koy xamee te léegi nag li ñu koy xamal mooy il faut mu am balluwaayu leer bi te balluwaayu leer mooy source diin bi nga xamante ni moom la yàlla dundee ci boppam te te te te bind ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam te boo delloo ci aaya boobu ñu doon wax léegi dañu ko fësalal mooy isxaara euh, euh, bëgg li ma laaj inni xaaliqun bashara min tin fa isa sawir wa nafaxtu fii min ruuxi la sirroom nekk te sirroom boobu di secret Muhammad sallallahu loolu mooy njàngale mi nga xamante moom lañ dëxëñ ci woote bi. alhamdulilah xam nga àdduna euh, doo wax ne fii lañ ñuy gën a jage wala fii lañ ñuy gën a jage waaye nag washim buruqal maali fii maxaa iliha binaasiril xalwa tukku fa mu unatal amali gis nga booy ut dara dangay dem fa nga ko yaakaare fii ñu nekk ci Touba ñu ngi ko fiy def ndax fii fi la daara ji nekk daara ji daara ji mi nga tudd man baaxul anwaar li tahfiisul quraan moom la daara ji tudd ñu ngi ciy góorgóorlu ci gone yi di leen jàngal alxuraan ak di leen yar ci yarub lislaam waaye nag ñi nga xamante ñoom la ñuy jàppalanteel ñooy ay mag ngir xam loolu ma doon wax léegi ñoom dañoo féete Ndakaaru waaye nag woote bi moom àdduna jëpp lañ ci woo mooy nit ku ne ñu àndandoo jiima jàng lan mooy sunu bopp ak lan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ban mën a xam suñu bopp ñun ñëpp ndax xam suñu bopp moo nuy mën a tax a génn ci ndóol xam suñu bopp moo nuy mën a tax a génn ci toppaate xam suñu bopp mooy tax ñu ñu suñuy suñu suñu bopp ci boppam ñu mën ci sukkandiku développé suñu réew xam suñu bopp mooy tax ñu xam lan moo Sëriñ Tuubaa jàngale xam suñu bopp mooy moo tax ñu may mën ñu mën a tax xam alxuraan kon daal xam Muhammad sallallahu alayhi wa ci boppam damaa gis ne man li ut ci adduna lépp moom moo war a jiitu su jiitoo ci ñun nag lépp ñëw na moo tax njàng moom nag noonu ci la xëy guddi ci la ñuy xëy bëccëg ci la ñuy gont ci la ñuy naaju ci la ñuy tawlu ngir rek fas yéene nit ku mën a doon ñu ànd ak moom ci xamal ko boppam. xamal ko loolee nëbbu ci boppam. ak itam waaru lislaam doon waaru mhm. mhm. mhm. euh, alhamdulilah. alhamdulilah. génn. Ah. nga ko waxee sax mooy mooy mooy mooy jubluwaay bi ndax donte fii am na lu mu ci nekkee mooy ni ma ko waxee léegi ci alxudaara ji mooy. man boolu an waa li tax fi suñu quraan waaye man boolu anwaar li maxarifati sëriñ Muhammad yi moom ndakaaru lan ko bàyyi lan ko lan ko lan ko lan ko lan def siis bi lan def nekkuwaay bi ndax li ko waral rek mooy dangay gis ni yitte ji foofu la ëppee yitte ji foofu la ëpp ndax ndakaaru ñiy ut dërëm ñiy doo daw jëm fa waaye teewul nag fu man di nekk moom njariñ li moom dañu ko lancé rek ngir ñun ñëpp ñu àndoon a daw jariñu ci rek waaye daal li tax ñu bàyyi ko fa moom dañoo xam ne ko yittewoo foofu lañ nekk biis bi mu ngi doon mm, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bii ñu nekk war a doon gaawu eh, bis bi nag moom maa ngi ci woo ñëpp kenn di ci ci woote bi ni ma ko waxee woon léegi ci sunu wayjur li nga xamante ni mooy sunub sëriñ di sunub xarit di sunu lépp moom lañ ci njëkk a wootanteel kon buñ ci tàmbaliwul ci kenn ku dul moom ndax ci ndigal loolu noonu koy defee suñu woon bàyyi leen ko tey koy bàyyi kon moom lañuy ci woote gi di ci woo bépp julit bàyyiwuma kenn bàyyiwuma tijaan xaadir laa bàyyiwuma kenn képp koo xam ne daal Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ñun ci képp koo xamante ni mbëggam sa mbëgg la ak bëggam sa bëgg maa ngi lay woo ci bis bi di ci woote nag bépp taalibe ndax Sëriñ Tuubaa nii amut lu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liggéeyalut ku dul Muhammad sallallahu alayhi wa te ñun ñii di ay taalibam tamit ci lan woo lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul garawayni Ahmadu kon daal maa ngi woo mbokki jullit yi di mbokk mu mbokki taalibe yëpp di woo samay mbokki taalibe yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko daa ànd ba suñ joon yàlla tey maa ngi ciy woo ñëpp waaye tamit di woo sama mbokki bopp yi nga xamante ni maa ñoom ñoo bokk Serigne Touba mooy askanu Mbàkke di woo askanu Busoobe di woo askanu Looyeen waaye di woo bépp askan di ñaan nag suñ borom mi nga xam ne dara tëw ko moo defal loolu dimbal a kàttan ak man-manu fekkee lii ñuy woote tamit ñu ngi ciy woo ñëpp ci lu ci waay bëgg xam wala lu ci waay bëgg man waaye lu ci waay bëgg a jàppe rek mu ñëw jàppe ko ci li ñuy wootee tamit ci euh, Dakaaru ci bis bi mën nañu wooye ñëpp ca daara ji ndax daara ji tamit li tax ñu samp ko sëriñ bi rek moo tax sunu borom rek moo tax yonent yàlla ma sallallahu alayhi wa sallam rek moo tax utuñ ci dara dëbbuwuñ ci dara sàkkuwuñ ci dara li tax ñu ku fa ñëw doo génn dem di uti fenn lenn foo lekk ji wala foo ko naane ji bëgg koo def mu sell te mucc ayib ngir yàlla yoonu teg sëriñ bi rek tax moo tax ñu defee ko na euh, daayira boo xam ne moom la tudd Nuur Daara yi moom mbokki taalibe yi nga xam ne moom la ñu àndal ci sëriñ bi ñoom noonu noonu laa leen tudd noonu tudd turóo laa leen jox ñu cay wuyoo mooy Nuuru Daara yi di ci ku mel ne ki Cheikh Ibrahima Thiaw ku mel ne ki sëriñ euh, Mouhamad Kabir. Cheikh Ibrahima ak sëriñ Pape Gueye ak sëriñ Moussa Dioum ak sëriñ Babacar ak sëriñ Mouhamad Kan ak képp koo xamante ne rek moom ci daayira bi nga bokk ñu ngi la ciy woo di woowaale mbokki daayira yi nga xamante ne ñoo wër Kër Mbaye Fall gépp tamit nag fu waaye nekk ca Kër Mbaye Fall ak li ko wër rek Ndakaaru fépp rek mbokki daayira yëpp ñu ngi leen di